condition yu ni def ci yow. ñu def ci man mooy doomu aadama saa yooyu yëgee ne suñ borom jël na ko yëg-yëg bu ca njëkk mooy yëg yu tiis ak naqar mhm. parce que dee li nga xam ne ñëpp ci bokk yëpp nga xam ne njiitam réew la bu génnee àddina dañ ko ràññee njiitam réew boobu itam wax dëgg yàlla ba mu jëlee pouvoir bi ba léegi ràññee nañ ko ci fan yu bari ràññee nañ ko ci fànn njàmbaar ràññee nañ ko it ci taxaw ci réew mi waaye ràññee nañ ko it ci bi leneen loo xam ne lii euh, mënoon na ñàkkaar waaye loolu képp koo xam ne kii jiite nga réew da am wëy da am xalaat waaye li may jàpp daal mooy yal na ko suñu borom bi leewu teewu ko yërëm ko ndax nag moom mooy gën laa dund tey ak jullit kon ñu ngi koy ñaanal ñaan yi nga xam ne jullit moom lay ñaanal moroom dëddoo. selon taxawaay yal na ko yàlla yërëm. Euh, selon taxawaay bi mu amoon concrètement euh, lan la Afrique di waaw ah, perte nañ ci parce ràññee nañ ko tàng yi ñu génn wax dëgg yàlla fépp foo xam ne.

Mm-hmm. ak lu mu ci munte waxee wax dëgg yàlla dem na fanweeri ak càll nga yàlla yëpp euh, man maa ngi jógoon Éthiopie bis bi nga xam ne lay dugg N'Djamena ñu escale ngi fàttaliku maa ngi kilifa bu jógoon N'Djamena conférence benn mm-hmm. lañ fa def escale technique mm-hmm. taxawuñ fa yàgg ndax jàmp-jàmp ba nga xam ne moom la avion bi amoon pour mu dem mhm. daanaka dama wàcc Sénégal rek te su ma dégg ne dugg na leen jënd na fanweeri at fa def mën nañu wax ne Tchad mosul stable na mu stable waa que am na ay incursion yu fa doon am ay ñuy xeex di tugu 2008 ak yeneen i at waaye fanweeri at yu toppalante yoo xam ne kenn rek moo nekk Tchad nekk fa président la république te xay bu ñu ràññee ak guerre bu métti amul fa niw na wax dëgg yàlla loolu de kon lañ fa doon wax démocratie bokk na ci nga xam ne nag ñoo ko fa dugaloo. donc yaa ngi koy wax naa mun naay sooxe waaye nag sooxe yi. mu tane woon la fa daan nekk. dëgg yàlla. yaa ngi koy wax sànq ne ku liggéey la ku def jéego la ci wàllu xeex li nga xam ne mooy terrorisme mais boo xoolee càdd ak position bi nga xam ne amee na ko ci Centrafrique donc euh, mu doon position bu stratégique est-ce que euh, génn ak àdduna kii day mënul yànqal egalement xeex bi nga xam ne sumboon nañ ko jëm ci wàllu terrorisme euh, ci Afrique. mën nañ ci am xalaat bu dem. bu ni mel noonu waaye nag comme soldat yaa ngi ko ba léegi. Mhm. ñu am yaakaar ne la nga xam ne mooy la fa xew ba mu ñàkk ci bakkanam ñoom ci yàq ne xëy na yàlla na ko yemal wala bu ko yemalee xëy na la am saafara boo xam ne bii bu nit ñi waxtaane parce que dégg naa opposition bi ñëpp ñu koy woote c'est le peuple pour ñu toog xoolaa réew mi parce que cat dafa yàgg ci loolu nag rébellion contre rébellion yàq na ko fàttaliku moom ba mu ñëw gouvernement la fekkoon. jaamaar loolu moom. dafa nekkoon ñu koy waxee seen abré gouvernement la nekkoon jaamaar loolu moom. Càdd muy réew moo xam ne daanaka ba mu suufoo ba léegi mille neuf ba léegi. maanaam la fa munti nekk yëpp mooy guerre guerre civile wax dëgg yàlla. fàttaliku partir de mille cent soixante sept soixante huit soixante treize. Ngarsa Tombal Baye. weeru tibis yi réunion bi nga xam ne ñu ñoo tuddee nordis yi moom lañu doon jaamaarloo ci pouvoir central bi yàgg na fa mhm. càdd de su ko mën a des ci lépp la nga xam ne moo ko caractérisé kon man nañ am ci tiitaange yaakaar ne non seulement Tchad dina nekk réew moo xam ne mën naa am jafe-jafe mhm. waaye nam noonu taxawit di dimbale yenn état yi nga xam ne terrorisme songoon na leen mhm. loolu dinañ xam ne tàng yi de su ma fi càddu ko man amoon na it ay rapport il faut mu stabiliser ba pare bu baax mhm. bu taxawaat mhm. soo ko mën a xalaat waaye ñu yi ko di di ko wutu mhm. doom doomi boppam ko wutu daal la nga xam ne moom la bàyyi ba juróomu doon demal def xëy na moom dana ci wéy waaye nag loolu dañ ne dafay ni nga ni la naa ñu wax naan fukki weer juróom-ñett ci kanam mhm. danañu organiser ay élection mhm. jox pouvoir bi civil yi waaye daal diggante bi jaaxle mën na yàq saxal dalu ci daal waaw jaaxle moom mënta ñàkk parce que moo xam ne président ba li ko faat mooy rébellion mhm. euh, loolu bulet la naa bu amee itam néew na fu mu am bu dem ci front bi di xeex ñàkk ci bakkanam jàmbaarte la waaye lu néew la ci àdduna lu mu dëgg yàlla waaw ñu ñaanal leen rek yàlla suturaal leen stabilité Tchad te xam nañ ne stabilité Tchad aussi stabilité yu bari foofu ci la nekk wax dëgg yàlla Afrique soxlawul loolu daal stable démocratie moom lañ soxla waaye li yal na leen ci yàlla génne rek euh, waaw leer na comme mhm. mën a jaar Euh, c'était juste pour euh, xëy na waxtaan un peu par rapport ak euh, li ñuy